jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ci refan TV ñu ngi leen noy di leen siar ba léegi rek comme niñ koy defee ciosanu lam tay nak ñu ngi fi refan Ngogom seet ci promoteur bu mag ñu koy wax Prési di leen balax yeen ñep di leen balax ci wéru kooru tedd yi ñu génn ñu wara ñoo nak waxtaan ak mom ci lu bari parce que nek na promoteur bo xamanteni ni yagna tegg teg ay lam fi ci refan ba dem na Dakar ñoo war a waxtaan ci loolu lépp président ñu ngi lay nuyu ci Refane TV. ñu lay fay di nuyu waa TV di leen baalu ak ci ko korite bi nu jógee di leen baal ak di ñaan télé bi ngeen yor yàlla def ko <coughs> di ñaan télé bi ngeen yor yàlla def ko mu doon télé bu mag a mag a mag parce que yombal na communication bi ci refan te tax na li nga xamante ne nii moo doon nëbboog yan kii yoo xamante ne nii yu bari feeñ. Mm-hmm. kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen baal ak di leen baalu ak ak Ousou la boox ñu nekkoon ay promoteur yu fi jiitu yoo xamante ne nii ñoom ñoo doon doxal lamb bawal. Mm-hmm. ñu toog di dem ci lam yooyu doon ay xale yu ndaw parce que ñun ñii ñëpp doo xoolee ay boy lañu. Mm-hmm. tolooguñu woon sax fu ñuy tëgge lam ci jamono jooju. ñu ne du dee boox a ngi tëgg reefan di tëgg dëkk yëpp di tëgg ñun booyi ngoogom yi lu nu tee ñun ñu mën a organiser ay làmb mm-hmm. ñu waxtaan ci ñun ñi ñëpp gars yi ne ma pour quoi loolu mënul nekk boobu sax man tuddaguma prési doo xoolee ci làmb yeeg yooyu la gars yi ak mm-hmm. sunu groupe yi nu doon formé ak yooyu ñu naan prési prési looloo indi sax trou prési production mm-hmm. ñu loolu moo nu dugal ci tëgg làmb ñu commencé tëgg premier combat affaire yi gars yi yëpp génn mu donatul sax donatul won lambu presi, mais lambu ngogom la won mhm. ngogom gep gen muy sunu grand yi ñi ngi nuyu chef du village ngogom euh, passas Badou Diouf mhm. di nuyu Cheikh Gueye nga xamne ñom ñoy taxawal ngogom combat bu ñew dal gëna neex benen bi gaay itam di ci ray sen mhm. loolu mënu ban année nga commencé tek la ñi ngi commencé sunu première journée fiki ci Bawol ci digënté MC Gage ak Issa Diag bu Ndrep muy Artu Junior lam ji ñëw doon lam joo xamante ne nii comme ni ma ko waxee sànq doonatul woon lambu prési doonatul woon lambu groupe prési production mais daa nekkoon lambu ngoogom ñuy xeexal immense ngoogom gi ñu nekk année ba dellu si mu di jigéen ñi góor ñi xele yeeg ndaw yi ñëpp li nuy def ñu gën nu koo bëgg ne nu sunu groupe na nu yokk sunu lépp pour euh, nu nu jëlee lam ci fi mu doon nekk indi ko fii mu nekk cosaanam. ci la ñu commencé di jël ay mbër yu siiw jël koo xamante ne nii ku mel ni kéwél fii la jaar indi fi mbay guy gi gis nga moom ñun ñoo ko génne yaakaar naa Tafa ak kombaam yi ëpp ci kombaam man maa ko tëgg kéwél mën naa ne komba yi mu ëpp lu mu bëre man maa ko tëgg. même du fekkoon euh, da nga jël initiative demal sa bopp sax dootoo ko man parce que du dee da ngay tëgg ñëpp di ci jàpp ñëpp di ci sonn. kon il faut nag euh, nga am loo leen cërale sax du dul dara te du dee ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi ñun bi ñuy tëgg li nu doon tëgg lu avancé ngoogom ci kanam parce que fii groupe Prési production bi ma créé lu ne lu baax lu nekk ci dëkk bi rek sunu loxo dugg na ci ci lam ji nu doon def du day jakk sunu participer nañu ci armel lepp lo xamante ni affaire sociale rek lu nek ci réew mi ñun sunu loxo dañu ko ci doon duggal lolu itam mo ñu doon permettre pour euh, sunu yépp yom lu ñu laal fi muy yom ci paayeeg xalé yek jigen ñek yépp parce que xam nañu ne li ñu jël ci nit ñi itam ci nit ñi lañu koy delloo ñun groupe bi kenn masuno teug lam ba mu pare ñu yëkëti kenn junni jox la ñom ñëpp ngi sama ginaaw mi avancé ak nu ngoogom turam gën a mën a yéege ci kaw ñun loolu moo ñu woon ak lépp loo xamante ne nii dafa nekkoon lu nit ñi def fii pour ñu mën cee dugal suñu loxo. waaw est que mën nañoo xam ban combat nga fa tegoon ban lam mu di lam ju mag joo xam ne dépassé woon na. waaw doo xoolee bi nu mujj a nii rek combat bu mag la. mu doxoon ci diggante diggante Tonnerre ak Pape Diouf. mu doon lam ju mag kéwél indi na nu ko fekk Sakaba Ndiaye Tine Gari doon na lam boo xamante ne nii dafa demoon ba dépassé fii Mor Pouy Fay Biram doon lam joo xamante ne nii gars yi dañu dëgër rek mais du doon yeneen dëkk ko organiser ci côté yi mu tas mais fii nag booy yëpp a mànkoo du nuy tëgg gars yi presque mën naa ne la du kii sax mais seen bakkan la ñu ciy teg ci pour lam ji réussir waaw. mais ñu gis fi nga doon tege lam mu dem ba xat lam yi xëjitu fi ñu naa nañ ko gene loolu xalaatoo ci woon waaw loolu ñu ngi ci doon xalaat. mais fii la ñu nekkoon muy neex ñu ne fi muy neex di neex ba yàlla def euh, génne gi ñi ngi ci doon xalaat mais du mën a nekk parce que euh, lam daa doon loo xamante ne nii ñi ciy jëriñoo ñoo bari te fii mu ne du lam amee ba jeex da ngay gis jigéen ñi ak euh, jaaykat yeeg ñu bari ñëw di ñaan di def kii naan gañe naa fa lii gañe naa fi lii léegi nag loolu doo demee ba fay jële foofu nga ko doon tëgee nga ko fay jële di ko yóbbu feneen day laaj waxtaan dëgg la xajatu fi parce que groupe prési ñoo toll noonu fii mu ne ñun sunu lam sax xajul sax stade Iba bu Dakar bi nuy tëg fii Aren nationale duñu ko fa teggone dina ca sori lol kon xam nga lol du lam ju ndaw mais du dé départ bi dañu non ngogoma tax ñuy def fi mu ne kay li ñuy ñaan di profito di ñaan monsieur le maire ngogom nga xamante ni moy njéen sira falu fal diko appel solennel yag nañu ci liggéey pour nu mu gëna gaawé mu dagal xeley ngogom yi terrain parce que soxla nañu ko parce que fi mu ne li nuy tëgg xaaju da xaaja xaaja xaaj fii mu ne du nuy tëgg gis nga daaw sunu journée bi danu mujj naan ñi bëre ba pare nanu génn dem ñibbi pour ñeneen ñi mën a dugg parce que rang yi day fees day xat-xat goo xamante ne nii mais amu nu pexe léegi nag loolu autorités yi ñu ngi nuy dégg ku ci mais ñu gis mu doon tombeek nawet tool yi jàmbur yu ci bari ñuy ñëw dañ ko yàq loolu du leen ni la ay jafe-jafe borom tool loolu indi loon nañu ay jafe-jafe yu ndaw mais ñun nag lépp lu nu mas di def itam dañu koy def ci yoon di ko def ci so parce que du dee social la doon def lépp ci social la ñuy def dañu da jëndoon ay baas yoo xamante ne nii yàgg ngeen fii ñëw am na tooli jàmbur yooyu sax dañu doon lu yooyu bant baaseel leen seeni tool spécial képp ku nu juum itam ba nga xamante ne nii yàq nañu sa tool du nu demee dañuy ànd ak def groupe demaat ba ca yow ca jamono jooja kalkin lu xayma la nga xam ne moom la ñu yàq fay la ko deux fois ngir nga xamne ben ak wala len lu metti du am suñu digënté ak yow motax euh, préfet commissaire yi jox nu bopp ba lu nuy bëggon ci commune bi daf nu yom waaw waaw waaw ba légui comme ñu ngi jëmaat ci tabaski bi fan la prési tolo prési production ak lam mu doon faral di teg tabaski ba 2 jours wala 3 jours waaw tabaski ba 3 jours la doon doon tabaski ba 3 jours la doon doon Prési production pare na ak euh, groupe am bi yëpp du ma ne Prési production pare na mooy groupe Prési production pare na fii mu ne ñi ngi waajal effectivement yoo xamante ne nii comme nañu doon def rek lanu lañu bëgg a def parce que fii mu ne yaakaar naa du ñu naan làmb bawal Prési la ñuy wax ak groupe Prési production parce que fii mu ne ndamuwunu defuñu dara mais nag yàlla def na ñun ñoo ko liggéey te ku aye itam xaw ma valsam moome la nu koy wax xaw ma nu nu koy waxe noonu mais fii mu ne nag ngoogom moo aye ci wàllu lam ñu ngi waaj loo xamante ne nii booy yaa ngi ciy liggéey parce que ak korite gi nu nekkoon nag liggéey yi nu yoroon affaire yi xaw a xat moo taxoon mënuñu fés naa fi ak cinq jours dina dinañu indi affice boo xamante ne nii duñu ko présenté ñëpp dinañu xam ne groupe Prési Production jaar nañu fa nu doon jaar te itam du duñu ñëwee dinañu def lu raw la nu doon def incha allah. waaw ñu gis corona bi jaar bi ba année balance amoon tegu ngeen lam est ce que loolu du indi jafe-jafe ci seen i combat ren. waaw indi na ci ay jafe-jafe di profito di masawu ñëpp ñi ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi di kii état Sénégal ak euh, kii yi mu ci jëloon mais nag feebar yeeg affaire yooyu mesure barrière yi mu ci jëloon mais nag du dee yàlla def nañu woyofal ko fii mu ne ba affaire yi commencé waat dox tuuti. moo tax ñun itam dañuy dem ak mesure barrière yu ndaw yi nga xamante ne nii moom la état def parce que fii mu ne même dunu doon ñëw fii itam dina dinañu ci jël suñuy engagement yoo xamante ne nii comme norme lam yi ni muy doxe dakaar norme yooyu ñuy sax duma leen jàngal organiser parce que Baldé ngi nii moo ngi Iboo ngi nii waaw dina xaw a jafe ci combat yi mais nag du fekkee mbër yi toog na nañu presque deux ans ngi combat amul. promoteur yi itam toog nañu deux ans wala un an et demi tëgunu kon ku bëgg fu mu fanaan. ak ku bëgg ku ko wét li tëjal bunt bi du leen boole. yaakaar naa mbër moo dem ci moom du di moom du yàqoo ci moom te promoteur yi itam yaakaar naa affaire yi du yàqoo ci ñoom. waa ci li ma yaakaar. ñu gis nga doon teg Dakar ñu dem tuuti Dakar mais dañoo gis teg nga fa ay journée mais bariwut te gisatuñu nga dem foofu. lu waral waa pare nañu Dakar Dakar doo gisee pause ba fa amoon. moo tax prési pause. parce que jot nañu fa def deux saisons ba dugg ci suñu troisième saison yu baax. yàlla def nag Dakar gis nga corona bi ñëw ñu jaxase affaire yi ñun itam ñu jël sunuy matuwaay daal di pause gis nga Dakar mën naa ne maay promoteur ba nga njëkk feesal stade Iba ba ñu tëj bunt yi. samay partenaires yi duñu ko weddi parce que si la ñu ànd ak suñuy yaa ku ci mel ni ñoom Badajon ak Cheikh Anta ak gars yi nuy jàppale foofu ñoom Sawru Fall ñoom As ñoom ñëpp ñu jël système boobu yóbbu ko Dakar première participation bi nu njëkk a def Ibamar mu nekkoon ci diggante Kewel ak Magat Seck booy ñaan numéro 2 kera dañu tëj bunt yi def ko gise ferme nga xam ne kon gars yi duñu ay caaxaan. amoon ay jafe-jafe nga dem dakaar te tamoon di tege fii lam dakaar parce que l' expérience fait la différence loolu la tubaab wax te yàlla daa def bi nuy bi nuy jóge fii danu lam du fekkoon alxuraan la dañu ko mokkal ba wàcce ko ba bin ko kaamil. kon du ñu demee dakaar lu nuy tari la rek te du dee tari ngay def yaakaar naa war da mën a jafe ci yow yenn jafe yi xaj na manque de expérience tuuti. ci jële lam fii yóbbu ko dakaar moo nekkoon suñuy jafe-jafe mais ni ñuy nomee combat ni ngay wuute partenariat ni ngay wuute bësu ko nañ ñu matale ko kon dañuy dem rek dal di tari te itam fekkoon nañu fa ñoo xamante ne nii amoon nañu expérience u Dakar pour ñu mën nu yombalal dakaar te du dee mas nañu ko def masuñu ko def benn yoon lañu ko def yeneen combat yi ba mu ñëwaatee daa gën a yom ci ñun est-ce ñu ngi lay xaalaat Dakar ren wala waat nga pour tegi ko. non pare nañu mais gëmuma ne groupe président mën nañu ñëw ren. parce que ak euh, saison bi ni mu mel nii ak coow li ci commencé am ñu am problème mu date. ñu am problème mu date nga xamante ne nii fii mu ne maa ngi nuyu sama mbokki promoteurs yi yëpp. au passage di ci jiital président Pape Abdou Fall. di ci nuyu waa association de promoteurs yëpp nga xam ne président Abdou Fall ko jiite ak association de promoteurs bi nga xamante ne nii Dieye seen moo ko jiite. waaw association bi nga xamante ne nii moom la Abdou Fall jiite. ak association bi nga xamante ne nii moom la Abdou Dieye seen jiite. mu doon promoteur yoo xamante ne nii fii mu ne li nu commencé fii. ba ci saison ba fa mu yem. mois de août presque saison bi yëpp gars yi jël nañu date yi. parce que combat yi xam nga dafa tijji ñu def deux journées rek dem ci koor. léegi nag euh, CNG bi nu wootee réunion ñu demoon ci réunion bu mujj bi ci kanamu ministère. Mhm. ñu ngi koy nuyu monsieur Matar Ba ministère du sport. daf nu xamal ne saison bi dañu koy yokk un mois ngir seere gu dattu dat yi seere léegi nag ñun groupe Prési production ñun xëccoowunu defuñu dara mm-hmm. te duñu gis lu seere ba na taj te ñun ñëpp nag du weesoo làmb ji kenn ku nekk daa am ci looy yëngu ñun amuñu jot ak dem di tëgg ay lambi mercredi ak ay jeudi ak yooyu mm-hmm. dañuy dem nag ba gis lu leer loo xamante ne nii duñu ci duggee peut-être dinañu ci mën a génn mm-hmm. ñu door a mën a dugg ci journée yi noonu est-ce que promoteur yi amuñu won ay jafé jafé ak CNC parce que temps yii dégg naa né ne euh, date yi pour ñu joxé il faut ñu joxé 1 million xaw wa position 1 million. mais lolu du ma ne gulet la mas na fee am. mais xajna ci système bi nu ko defee ak mbas mi ni mu ñëwé ñëwee ak promoteur yi ni nu yaggé ci tous yi nga ko laajaat leen 1 million. lolu mo indi jafé jafé yak ciowli mais bu jëk do na am man mi bi may taxawal combat kewel ak euh, lay bay joxe naa caution un bi may taxawal combat Baara Ndiaye bu Faas ak euh, njaaxum joxe naa caution cinq cent mille parce que li tax CNG di def loolu dañuy bañ am na yenn promoteurs yooyu tëggunu te duñu ne tëggunu dañuy dem jël date dunu fa joxe dara bàyyi ba keneen ki bàyyi date bi noonu te nit ñi war a tëgg léegi nag moo tax ñu ne képp kuy ñëw ci làmb ji képp kuy jël date da ngay joxe un million képp ku garanté doo joxe un million garanté nag doo demee ba tëgguloo yow sa un million da nga koy perdre mais du doon bu jëkk ak fii mu ne ni affaire yi seer yi promoteurs yi wu demeewuñu noonu dañuy bàyyi noonu rek mais fii mu ne doo deful loolu date yi dina jeex te fii mu ne ku ci melni ni sunu papa gaston Beng. ñi ngi koy nuyu ak combat yu mag yi mu tej won mu ne duñu tebe won joxe nonu dat yi rek mom combat yi presque duñu ko mën sowé te ñoñu combat dafa bok ci li sowé lam nga gis sunu président pape du fall gis combat yu mag yi mu tej mom itam johla tebe ku ñew rek ñu jox la dat te itam tegunu dat yi ci norme bi nga xamantene ni mom lañu war di joxe dat du boba dat yi day jeex te lam ji du dem loolu moo tax seen CNC doxale noonu noo am naa ci parce que c'est pas la première fois muy am Alioune moo ko fi commencé woon xaj na nag kii dafa ñëw indaale coow ak ni lam ji fii mun a xam nga pour lam daa nekk milieu boo xamante ne ni milieu coow la mm-hmm. loolu naan jaxasum Baay Faal ak affaire yooyu sagar bu na nga ciy gis kenn kii day jóge fële nekk sagar be bii sagar nekk bële bii nekk bële te itam ay nit du nu bokkul fu nu cosaanoo bokkunu fu nu yaroo bokkunu culture léegi pour ñu jaxasoo ak di réeroo du mën a ñàkk daal. waaw maa ngi leen di fay di nuyu waa Refane TV di leen ñaanal ñu yokk lool sax di nuyu sama gaa yëpp ñu nu àndal président ñoom Ibou Ndaat Ibou. Moussa ak gaay ci dess yépp hmm, di leen ziar di leen balu ak ci korité bi nu jógee te di leen baalu ak bu baax di leen ñaanal jamm xewal yu bari naka ngeen di waajale waat ñu duggoon ci corona corona bi jeex ngeen wara a naka ngeen ko yeen yore staff bi waa xam nga corona bi nak jaar na fi xawa am jaxasoo yu bari yu fi indi mais nak comme tam nañu ko ñun comme tam nañu organiser mom danaka du xawa jafé ci ñun mhm. dañuy tangalat affaire yi rek moo gën a kiyaat gën koo innover indil yeneen kii yu bees rek préparé waat ko bés bi parce que ñun moom tam nañ ko. tam nañu organiser. daanaka euh, association bi yàlla dafa def euh, benn déggoo bu ci am boo xamante ni ba ni ñuy nekk ba ni ñu toll fi ñu nekk nii yàlla dafa def ñun ñuy ànd ñun ñuy organiser ñooy mas ci ànd. même football sax bu ñu ko daan def gañ ñu yombul woon defe naa <laughs> ci ñu nekkoon au top ci la ñu bokkoon. kon ci loolu lañu tam tam non loolu ba yàlla dogal na bi ñuy organiser pas parce que génération bu ànd depuis xale la ba ni ñu doon mag kon organiser moom jaaxaluñu xol yu xol yu ànd la ak xel yu bokk ñoo bokk ci lépp moo tax organiser moom jaaxaluñu quoi looy wax ñi nga xam ne yéen ci presse production bi yëpp waaw di leen soñ rek di leen ñaax di leen soñ te xam ne organiser yombul mm-hmm. dafa metti lool yombul woo ay nit xam nga dalal ay nit moo xaw a jafe te ñoom ay jàmbaar lañ ñu dëgg nag di leen ñaaxaat nag ñu gën a góorlu xam ne nag Refane daf ñu sas waratunoo échec Refane daf ñu sas aduna dil ñu xaar kon échec waratuñu nanu góorlu rek nekk ci waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ñu préparé waat rek tabaski baa ngi ñëw hmm. te daanaka taxawal affaire yi jot na hmm. kon bu ñu jógee ci korité bi nii ba delluwaat commencé liggéey bi fi mu ne nii moom toogaay amatul di ñaax ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne ñu pare rek pour defaat lu raw li nu fi daan def waaw. waaw ñoo lay fay di leen ziare di magal ñëpp di sant ñëpp tamit di wax ne waaw comme ni ko gars yi waxee rek di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq si koor gi fexe lu lu ñu koor rek yàlla nangul suñu koor jaajëf. ñu gis ngeen yàgg ànd ak presse teg lam doon wala lu métti ci waaw comme ni ko gars yi waxee rek. tëgg lamb metti na wul waaye nag comme nun yàgg nañu comme ni ko Modou waxe lu ñuy organiser du metti parce que dañu ko tàmm depuis temps booy ba tey ñoo ànd di liggéey liggéey bi di nice moo tax lu ñu song pour nga dóor ko day yomb quoi way noonu la demee. wax doomi Refane yi ak naka ngeen war a ñëw ci tabaski wa waa doomi Refane yi moom di leen wax rek ñoom yàlla dogal na ñun ñun waa Refane ñëpp ñëpp ñun dañoo yaroo refan min refan di ay taalibe sëriñ Touba nag moo tax taalibe kooku ñu doon moo tax ñun suñu mbir du metti quoi parce que sëñ Touba moo ñu yar moo tax suñu mbir yomb waaye noonu la demee waaw leen laay ñaaxal rek mooy suñu maire di ko xamal ne lañu comme danoo yàgg di organiser di organiser muy naaj yaakaar naa loolu noonu comme li Macky woote pour employé yaakaar naa kon groupe prési mu ngi def loolu léegi nag dañuy ñaan suñu maire di ñu jàppale parce que li yaakaar naa maire bu ne soxla na ko dëkkam am ay ndaw yuy organiser muy naaj nga war leen di jàppale xam ne ñii ñu ngi participer si affaire yi kon nag maire bi nañu geesu jàppale groupe Prési production xam ne vraiment ay ndaw yu gëm seen bopp lañ ñu ngi liggéey tamit kon na leen jàppale parfois di jàpp si combat yi di leen financer parce que lii rek la réew soxla jeunesse bu ànd di liggéey loolu mooy sama kàddu gu mujj di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. jaajëf. rek pare si xanaa ñu ñëw rek sa kaddu gu mujj. waaw sama kaddu gu mujj di profito di sant encore parce que Ibou mi génn léegi rek daana ko wax. merci baat bu gàtt la ci français mais tubaab ku mu respecté wul du la ko wax. waaw te ñun du dee liggéey nañu lu ma douze ans wala nëna kii dix ans ci ginnaaw. am ñu yàggoon na jàpp nag ci sunuy combat. jàpp gi ci dakaar ak ci Bawol la ñuy boole parce que doo xasee tudd jàppale moom foo dem surtout ci promoteur gi nuy def dañuy soxla ndimbal parce que kenn mënu ko danuy taqale rek di jàpp fii jàpp fële mooy loolu di ci jiital nag ku ci mel ni ministre Mor Ngom di ko talalaat loxo bu baax nag bëgg mu dégg sunu appel bi bu baax a baax a baax ne ñi ngi koy talal loxo pour nous mu gënon di jappelé Prési production ak wa groupe mu jappelé nuko parce que fi mu ne paré nañu pour di def lu raw la ñu doon defaat toftal maire Refane mu di jibril Thiaw koku sunu maire la sunu mbok la té ngogom daf ko soxla momitam parce que man na ne yaayam fi la joggé fi la joggé dal di dem Refane kon doomu dekk bi la kon Jibril Thiaw waa Ngogom ñu ngi lay talal loxo pour nga jàppale leen ci li nuy def jàppale leen encore ci seen courant bi nga xamante ne nii Ngogom dañoo am courant boo xamante ne nii dafa yàgg lool boobu ba léegi ñu naanu tey suba tey suba te defar nañu lépp installé nañu def nañu lépp wàcce courant bi ñu commencé doxal kese moo nu dese léegi nag yàlla def loolu ñu àgg si fa mu tàgg lool kon loolu maa ngi koy lancé Mor di ko lancé Djibril Thiaw di ko lancé maître Pape seen meeru Ndondol falu Fall moom meeru Ndiène Sirax yàgg nay liggéey ci loolu mais pour ñu compagner ko wan leen ne dëkk bu mag la li fi yeewoo ci nit mën naa ne commune njeen Sirax bi mu bokk moo ci ëpp population bu fi yeewoo kon nanu nu geestu ci loolu beneen bi ni nu leen di gestu nu ci courant bi noonu lañu leen di appeler itam pour ñu geestunu ci terrain mhm. parce que lam yi nu fiy organiser chaque année dinañu am lu mat ay 7000 personnes yoo xamante ne nii ci xayma danu koy recevoir ci lam yooyu te lam bu mën a dajale mille personnes mhm. loolu du lam bu caaxaan mhm. kon nanu nu jàppale defaral nu ay terrain defaral nu yoon bi nga xamantene ni nii mang apelat ko ko don wax mang la koy appelat pour nga deg ko man ak Bada jon ak euh, monsieur Khadim Sam mang koy nuyu ñew nu ba sa bureau ba ñun nekkon ci yoon bi nga xamantene ni mo nek ci Kaba ak refan, mor yoon bobu refan soxla nako ko te moor yow xam nga ñun ak yow ak ni mu kon mor wa refan ñëpp ci turu refan ñing lay saku pour lepp lo man ci yoon bobu rek pour ñu yombalal nu ko yoon bi dox diggante kaba ak réfan parce que réfan nak da bok ci dëkk yi gëna mag ci dëkk yi fi mu ne ñi ngi commencé hôpital Assad nga xamne man mi membre la ci fofu kon euh, ñun dal bëgg nañu ku nu jappalé waaw légui hôpital bobu lo ci wax sa mbokki promoteur yi ak mbër wa hôpital bobu yaakaar naa jëloon nga ma ci bi ñu ci mujjé waxtaan mhm. biñ fi wa TFM ñëwé ñing ci lancer mbeur yéen ñi toog fii yëpp à partir de maintenant fi nu toll nii képp ku nekk te doon doomu reefan nga koy doxee di ko waxee di ci def lépp loo xamante ne nii xalaat nga ne bul ci xeeb dara ci wax ci communication ci lépp parce que ay ndawkat ñoo dajaloo ñu jëloon euh, xalaat bi bitim réew indi ko reefan ñu ciy xalaat def ko groupe whatsapp la déparé woon ñuy dem di dajale di dajale ba am plus de ay cinquante et quelques ñuy def ay partenariat monsieur le maire euh, jox nu terrain boo xamante ne nii fa la ñu koy def léegi nag mu dépuye administratif yoo xamante ne nii mooy yombalal gars yi liggéey bi ñu nekk ci papier yooyu te pareeguñu ci kon yow ministre Mor Ngom yow itam sama waa ji yow lay lancé waat appel mhm. pour këyit yooyu nga xamante ne nii waa Refane dañu ko bëgg te mënaguna koo am mhm. te yow yaakaar naa yaay président président mooy yow mhm. kon monsieur le ministre Mor Ngom ñun talal nañu la loxo ci turu Refane gépp pour sunu këyit yooyu nga xam ne dafa tàgge ci turu Abdoulaye Diouf Sarr mais ministère de la santé pour nga defal nu ci ay jéego yombalal nu ko ànd ceeg sa rak Jibril Thiaw ak euh, maire Touba Toul maire Ndiène Sirax nga yombal nu ko parce que itam yàlla def na yow yaay kilifa gi jërëjëf. léegi Prési Production est-ce que waruñu comme tabaski bi ñuy teg ñu jël asaat am combat bu ñu leen ci jagleel wala ñu sargal leen ci comme quoi ñi ciy ñëw dina bari pour ñu gën a comprendre hôpital bi. loolu maa ngi ci doon liggéey. maak euh, Asiad ji se fe safee nu sax heureusement fi nga dugg fasee nanunu du dee lamb ngogom bi bi nga xamantene ni mom le groupe Prési production di teug man na ne moy lamb bi ëpp doole ci département bu Thiès ak département Bambey ci wàllu tebeski parce que fi yëpp gox bi amul lamb bu mën dajale 7000 personne wala 8000 personnes te ñun dañu ko xayma rek kon dina nu sargal Assad dinañu ci sargal ay ministre ku ci melni ni Mor Ngom dinañu ci kuchimel njukal ku ci melni ni Jibril Chau. bëgg nañu ci delo njukal kep ko xamantene ni bawol bawal la ñor te ngay doxalal bawal la nga nek mu suufeeg mu kawe te kenn yeguko ko nu nu ko mën défé promotion ba nga xamantene ni fo toloti wala loy waxati dina mm-hmm. nu ki kat moy def lele wala ki moy wax lele ñun bawal kessenu ñor waaw waaw ñu ngi ko laa jërëjëf léegi di profito itam di gërëm parce que oto lu mu fees fees nuyul ma sama yaay xaj na ci waaw moo tax ñuy profito di gërëm sunuy grand yoo xamante ne nii tey jii dañu fi waroon a teew muy sunu grand Ibra Ndiol nga xam ne organisation ak ñun tation bi ñu yor ak deretu xale bi ñu yor léeg sax ñu xaw a dem ba bëgg a mu ne nu gaynde nii ak nii ak nii la du ñu amee journée yu mag yeeg yëpp moom mooy jiite affaire yi di ci toftal suñu grand as seen di ci toftal bay Sall tin di gërëm itam paa yi nag ci dëkk bi yëpp di nuyu jigéen ñi di nuyu meer yi di nuyu ñëpp ñun fii amuñu fi frontière ñun daal kontaan nañu. di gërëm yéen itam yéen waa Refane TV di nuyu Xaadim di nuyu sunu rak ji yow canaar di la nuyu di nuyu sama grand ba Pape Diop. di wax ne daal ñun kontaan nañu bu baax te itam ñi ngi pare loo xamante ne nii di ko bamtuwaat du ñu ci pare yaakaar naa doonu jël siwaatee émission booba dina dinañu ci mën a yaatal wax ci ni nu ñi nu war a àndal ci bés bi wax ci ni nu combat yi taxaw te loolu dootul yàgg xam naa fi ak fukki fan ak nangam rek dinañu la woowaat xam naa ndakaaru lay doon wala fii da bawal ñu ñëw ci combat yi ñëw ci partenaires yi nga xam ne waxtaan nañu ak ñoom ba juboo parce que ren jii daal bëgg nañu def loo xamante ne nii histoire daf koy nettali mhm. te ñii nag lañu koy àndal nous parer nag di préparer saison déwén parce que nag nous pare pour tax ci rip di gërëm tafatine momitam itam di ko nuyu du dee moom moo moo sos tax ci rip te ñun bawal moom lépp lu nu nekk itam dañu rip jërëjëf rek presse ñu gis euh, lam yàgg na am fii bawal ba képp ku tabaski fu muy waaje rek xel ñëpp dem ci presse mais gis nañ nag am nañu parafitoo di teg ay lam di taxawal ñu bëggoon laa laaj ci loolu est ce que du indi jafé jafe ci presse production waaw ñun Prési Production ñun dara mën da indi ay jafe-jafe ci sunu làm wala dara mën da indi ay problème sunu làmb parce que du ñu demee ba ay nit jóge ca àll di tëgg fii yaakaar naa ñun ñoo tax ñu jóge ca àll di ñëw di tëgg fii parce que gis làmb yu normal gis làmb yu gaa yi ñëw lépp li nga xamante ne nii moo doon nekk ci làmbi dakaar ñu copier ko indi ko bawal lépp loo xamante ne nii mooy tax reefan jëm kanam te soxlawuñu ci dara ñu koy def moo tax du nit jóge ca àll ba ñëw di tëgg ñun mënuñu déranger ci dara parce que jàpp nañu ne lépp ñun la du fekkoon dañu fee nekk bàyyi woon ca bàyyu njëkk ya wala tëggatunu wala jéemunu ci lambu bawal dara du boobaa kenn du viser reefan sax bay ñëw di fi tëgg kon ñun ñoo ñuy tëgg ñu ngi leen di talal loxo ñun xëccoowunu dañu leen di bàyyi sax ñoom ba nu taxawal seeni i ba pare ñun prési du boobaa la nuy xam nag ñan ñooy prési production ak ñan ñooy groupe prési production ci organisation parce que ñun ñëwunu rek tari de wax naa la ko sànq ñun dañu rampe commencé premier combat bi nu njëkk a fay fii ñu ngi fay quinze mille francs dem bay fay fii mbër cinq cent mille kon xam nga ñun def nañu effort combat ñi ngi fi doon tëgg ay combat ay cinq cent mille tout fii mu ne dem nañu ba fiy tëgg ay combat ay quatre millions cinq cinq millions kon xam nga groupe Prési production rampe na ba pare nag di ko defal waa Refane te ñun nag ay doomi Refane lañu ñun kenn gënu noo bokk reefan parce que suñu juróom-ñaari maam maam yëpp Refane lañu dëkk ñun ñoo ndar képp Refane téye koog suñu loxo kon ñun kenn mën dëxëcoog ñun Refane ñun dal ñoy réfan ci gattal dal président wax sa mbokki promoteur yi lay jàppale ci lam faral di taxawal fini nii. waaw di suñu mbokki promoteur suñu mbokki promoteur yi di leen sant rek di leen gëreum mais nak dama ci am sama benn wayu bop bo xamante ni ku ci mel ni kanji production mu nek sunu grand nek sunu way lol sax mom ñing koy di ko bu baax maak moom fan yii rek ñi ngi commencé woon di waaja liggéey ci journée bawal bi man ak moom ak mbay guy gi am na partenariat bu nu ci waroon a def bu doy waar di ko sant di nuyu sunu papa Gaston Mbengue bu baax parce que fukki at yi nu tëgg fii chaque année ci partenaire u Badajon moo nuy abal ay barrière te du duñu ci fay dara barrières yi dañu koy teelu ëpp ay fukki fan reefan kon ñi ngi nuyu Gaston Mbengue di nuyu président Pape Dou Fall ñimew ma def dara ci lam te tàgguma ko émission bi avant ma koy tourner rek nee naa ko président damay tourner émission di nuyu Assane di nuyu Dieye seen di nuyu sama grand Jibi Ndiaye kooku moom itam sama waayu bopp la Gibson production di nuyu ci financiers yi ku ci mel ni Abdoulahat Ndiaye groupe bi ñëpp xam nanu partinaire ak relation yi nu amoon ci lam yi ñu doon def Dakar di gërëm tous les promoteurs Sam Production moor Mbaye nga xam ne Grand Fallou fay Touba di ko ñaanal ci journée dem bi di mu ci amee yëpp yàlla may ko ci jàmm ak xéwal yu bare bare bëri kon ñun promoteurs yi du lam ñëwee nag mën nañu xaw a jaxasoo mais nag du lam passé ñëpp ay doomu ndey lañu mais nag léeg du ku ne daq sa intérêt intérêt kenn ku ne day daq sa intérêt ba mu sës encore di nuyu Fallou Ndiaye Ndiaye Production moom itam sunu partenaire la te mu dëkk Lambaay di nuyu gaa yëpp waaw jërëjëf. di nuyu Gris Junior ak ñoom MC Gaz fii mu ne du nu bërewul ak ñoom mbër yi na fii yëpp ci tun yi képp ku ci prési joxul combat itam du bés ba yaay gën a son prési ci combat yi kon ñoom itam mention spéciale te du ñu demoon bay tëgg làmb ñoom ñoo taxoon ñu commencé tëgg làmb parce que jàppale leen fii ñoom ñi ñëpp bëri nañu fi chaque année dina nu génne benn espoir boo xamante ne nii du demee Dakar ci espoir yi gën a jar lay doon gis nga ñii nit ñi xëccoog ñun ren daaw ñun ñoo leen bëreeloo doo xoolee mooy espoir yi gën a tàng Dakar mooy ay fils de Katek ay ama boo mooy daara ji fii doo fi mokkalee alxuraan yaakaar naa foo dem mën faa jiite juma wala nga jiite fa jàkka mm. kon ñun xëccoowunu du ñëpp tëggoon ba pare ñun ñu jaar ci ginnaaw def li nu war a def du ñu ñëwee ñëpp dinañu ne groupe Prési Production Prési Production ngoogom fan la ñu jaar ba seen journée yi mel nii du ñun nag mais ay mbir la ci biir jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi ñu doon seetaan ci Refane TV yéen ñëpp di nuyu sama caméraman Khadim ak musaa Diop ci beneen caméra bi di nuyu yéen ñëpp ñuy seetaan nuyu papis bu bàyyi Karim sama booy la dal yu ci bari ma bu mu rek moom moo fiy jaar quoi nuyu ñëpp di leen siyaar leen jaajëfal Prési Production lañ seet si woon tey xam naa nañ ànd ak moom ci combat bu taxawee ba ci suuru lam njëkk yëpp dinañ ci ànd ak yéen lépp lu fi nar a jaar daal dinañ ci ànd ak yéen ci Refane TV jaa ngeen jëf